أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ak yéen ci téere boobu tudd kitaabu tawxid te mooy téere cheikh muhammad ibnu abdulwahab ibnu suleyman téere bu màgg boobu nga xam ne boroom xam-xam boobu muy seex al islaam muhammad ibnu abdulwahab ci xam-xamam bu barkeel taalifal na ko jullit yi pour jullit yi war ko jàng teewlu ko pour mën a kennal seen boroom mën ko wéetal tey nekk ñetteelu dars mbokk yi ñaari passé muqaddima la woon daanaka tey mooy dars bu njëkk bu ñuy dugg ci biir téere bi waaye bépp leçon bu nit di jàng dina am ay ahdaaf ay jubluwaay yoo xam ne moom la ñuy jublu ci jàngale darsu tey bi bi ci njëkk mooy jullit bi na xam importance su njàng xam xam-xamu tawxiid jullit bi na xam importance bu mat sëkk boo xam ne xam-xamu tawxiid jàng xam-xamu tawxiid am na ko ñaareel bi mooy jullit bi na mën a takk na mën a xam xereñ gi yàlla def ci bind nit ak jinne loolu mooy ñaareelu jubluwaay bi jullit bi di jële tey ci darsu tey bi mooy na xam xam bu wér sëkk bu mat ana lan mooy jubluwaayu borom bi tabaraka wa taala ci sàkk mbindeef moomu ñu naan jinne ak mbindeef moomu ñu naan nit ñetteel mooy jullit bi na xam xam gu mat sëkk jële njëriñ ci xam ne ngëm yàlla tabaraka wa taala du mën a mat ann al imaana billahi la yatimmu illa bi kufri bi taaxut jël bi na xam-xam gu mat sëkk ne ngëmam du mën a mat lu dul dafa weddi xërëm yi lu dul dafa weddi lépp loo xam ne daf ko jublu di ko jaamu di ci barkeelu te du lu yàlla tabaraka wa taala digle ñeenteel mooy jullit bi na xam mu daliloo ci quraan ak sunna ci aaya yi ak ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xam ne tawxiidam kennal yàllaam du mën a mat lu dul mu am tawxiid jaamu yàllaam du mën a baax lu dul mu am tawxiid jullit bi na tegtaloo bi anna tawxiid shartun li sixati l ibaada na tegtaloo bu baax ci quraan ne tawhid yàlla tabaraka wa taala jaamu yàlla gi nit di jaamu yàlla yàlla du ko mën a nangu lu dul mu ànd ak tawhid loolu mooy jubluwaayu jàngale tawhid bu ñëwee ci bunt bu njëkk bi ñuy duggee ci darsu tey bi mooy tawhidul uluhiya huwa awjabu alwaajibaat wa huwa al asaas li jamii al amal kennal yàlla tabaraka wa taala ci ay jëfam moom yàlla ne moom dong moo moom jëf yooyu moom dong moo ko moom bokk ko kenn moom dong mooy ki ko mën moom yàlla tabaraka wa taala nee na loolu aw jabul waajibaat waru gar la bu war lépp loo gis mu war kennal yàlla tabaraka wa taala tawhidul uluhiyya moo ci gën a war ndax wa huwal asaas moom mooy fondement bi mooy pied yi téye diine ji li jamiil amal mbooleem jullit bi jëf yi muy jëf pour mu dëgër pour mu sell pour mu baax pour yàlla nangu ko fokk mu boole ci tawxidul uluhiya tawxidul uluhiya nag te mooy kennal yàlla ci ay jëfam safaanam mooy sirk wa didduhu as sirk wa huwa azamu almuharramat wa fi hada albaab maa yadullu ala dalika min alkitaabi wa sunna bokkaale yàlla tabaraka wa taala te mooy ashirk mooy bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi mooy li araam li yàlla gën a araamal ci bunt bi mbokk yi borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran ci bunt bu njëkk ci kitaabu tawxid sëriñ bi bi mu ñuy taalifal téere bi aaya yi mu ci njëkk indi mooy بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون borom bi tabaraka wa taala mu ne nit ak ginne ñaari mbindeef yooyu man yàlla tabaraka wa taala li tax ma amal leen ñoom ñaari mbindeef yooyu li tax ma sàkk leen mooy pour ñu kennal ma pour ñu wéetal ma pour ñu jaamu ma ndeke kon illa gi tax yàlla bind nit ak ginne amal leen du lenn lu dul illaa li yabudun wa maana yabudun ay yuwahiduni mooy nañ ma kennal nañ ma wéetal nañ ma jaamu man yàlla tabaraka wa taala looloo tax ma amal nit ak jinne loolu nag te mooy baatu ibaada boobu boroom xam-xam yi yal na leen yàlla fay seexal islaam biñ ko laajee wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yabudun mu ne ibaada day hiya taatu llahi bimtisaali ma amara allahu bihi ala alsinati rusul jaamu yàlla mooy topp yàlla mooy jàpp ci ay santaaneem comme ni ko yonent yi leerale ci seeni làmmiñ yàlla ba mu yónnee yonent yi yonent yi ñëw dañoo leeral naka la ñuy jaamoo yàlla noonu yonent yi leerale ko noonu la ñu war a jaamoo yàlla képp ku jaamoo yàlla neneen sa jaamu dina neen ba tey moom sëriñ bu mag boobu bi mu ñuy firil al ibada te mooy cheikhul islam nee na al ibada ismun jaami li kulli ma yuhibu llahu wa yardaahu min al aqwaali wal amali alzahira wal batina jaamu yàlla nee na tur la woo xam ne dafa ëmb boole dajale lépp lu yàlla bëgg te gërëm ko ci ay wax ak ay jëf yu feeñ ak yu nëbb ndeke jaamu yàlla mbokk yi suñ koy boole di xool mooy lan day nekk xeetu jaamu yàlla boo xam ne moom yàlla tabaraka wa taala daf koy bëgg kon boo amee jaamu yàlla bu yàlla bëggul baaxul jaamu yàlla bi ngay def na ko yàlla bëgg bu ko bëggee na ko gërëm na nekk ay wax yooy wax wala ay jëf yooy jëf yu feeñ ak yu nëbb lii mooy jaamu yàlla nee na jaamu yàlla gi nag dafa am wuruwaay ay wëruwaayam yi muy wër daanaka di nga fekk fukki tomb ak juróom la fukki tomb ak juróom ci ay ponk yoo xam ne ay waruwaay la yoo xam ne képp ku ko matal matal mbooleem xeetu jaamu yàlla yi képp ku def fukk ak juróom yooyu yow sa jaamu yàlla mat na pour ñu leeral lool nag dañ koy séddale ay tomb am na ci jaamu yàlla yoo xam ne xol moo koy def am na jaamu yàlla yoo xam ne cër yi ñoo koy def am na jaamu yàlla yoo xam ne làmmiñ moo koy def mbokk yi jaamu yàlla yooyu dañ koo séddale moom fukk ak juróom yooyu dañ koo séddale ci cër yi xol bi làmmiñ bi ak cër yi am na ci yoo xam ne waajib la yooyu juróom la dañ ko am na ci yoo xam ne juróom la waajib yoo xam ne fal force la su la neexee su la naqaree da nga koy def mustahab yu ñu sopp haram lu araam makruh lu ñu sib mu baax ak loo xam ne boo ko defee sa mbiri bopp la comme lekk ak naan ak solu benn bu ci nekk nag ci yi ñu wax ci xol bi ak làmmiñ bi ak cër yi def ci am yooy def cosaanam nag yooyu yëpp imam Qurtubi mu ñu koy nettali nee na aslul ibada cosaanu jaamu yàlla mooy atazallul mooy toroxlu suufe suufe la wàcc sa bopp wal xuduu teg sa bopp ci suuf toroxlu jox sa bopp yàlla xam ne yow doo dara moo tax gis nga ci sujjóot ak ruko di nga yëg ne doomu aadama bi kat mu ngi toroxlu ci kanamu yàlla tabaraka wa taala ndeke mbokk yi lii mooy jaamu yàlla tabaraka wa taala mooy nit ki foog mu def ko bañ cee bàyyi lenn fukk ak juróom yépp mu jëm ko matal borom bi tabaraka wa taala wax ñaareelu aaya bi mu ne walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul rasulan an i'budu llaha wajtanibu taagut wala qad wallahi gëñ naa ci sama màggaay man yàlla baas naa man yàlla yónni naa fi kulli umma ci xeet bu nekk rasulan ndaw yonent lu tax ma yónni ko an ibudullah nañu jaamu yàlla nañ ko kennal nañ ko wéetal wajtani bu taaxuut nañ bàyyi xërëm yi nañu moytu xërëm nañu moytu lépp luy xërëm ak ay xeetam ak i mbokkam ñaari ay ñuy rek ñoo njëkk ci téere bi wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa li yabudun wa laqad baasna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu taaxuut borom bi ne xeet wu nekk tànn naa ndaw yónni fa wa in min umma illa xala fiha nazir amul benn xeet lu dul yonent wéet naag ñoom bu yàlla yónni ci ñoom baas naa man yàlla maa yónni fii kulli ummatin ci bépp xeet ci bépp nation rasulan ndaw ar rasul man uhiya ilayhi bi char aw umira bi tabligihi kooku mooy yonent mooy képp ku yàlla wax yu jox la sharia jox la ndigal ne la sharia bi ma la jox jottali ko kooku mooy rasul kooku mooy yonent yàlla leen na xeetu yëpp yónni naa fa nanu jaamu yàlla wajtani bu taaxuut nañu moytu xërëm yi a taaxuut kullu ma tujaawazu bihi l abdu hadduhu min maabudin aw matbuin aw mutaa loolu mooy xërëm mooy lépp lu nit ki ëppal ci moom ci di ko jaamu wala topp ko wala di ko roy loolu mooy bokkaale loolu mooy xërëm lu mel ne xërëm yi lu mel ne buxaaba yi lu mel ne njabarkat yi ñoom ñëpp ay xërëm lañ ak képp ku tëral aw yoon yoon ba wuuteeg yoonu yàlla ak yonent nit ñi jaar la ci topp la yow xërëm nga képp ku woote mooy yàlla nit ñi topp la di la mooy yow xërëm nga loolu mooy xërëm mbokk yi su ñëwee ci anasiru dars élément wu leçon bi leçon bi dafa am ay élément élément bi ci njëkk mooy alxikma min xalqil jinn wal ins xereñ xam-xam bi nekk ci yàlla bind bu mu bind jinneeg nit loolu lan la war a doon borom bi tabaraka wa taala bindul jinni ak nit ci caaxaan lam yaxluqu llahu l jinna wal ins abathan wala suda تعالى الله عن ذلك وتقدس وإنما خلقهم لأمر عظيم وهو عبادته كما دلت على ذلك الآية borom bi bindul nit ak jinne ci fo ci mboosóor ci caaxaan yàlla tabaraka wa taala sori na loolu yàlla weesu na loolu wa innama xalaqahum li amrin azim yàlla dafa bind nit ak jinne ci mbir mu màgg mbir mu rëy te mooy jaamu te mooy toroxlu ko toroxlu ci moom wommuti ci moom topp ko wéetal ko kennal ko li moo tax yàlla bind nit yàlla sore sori na lool bind nit ci fo afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan da ngeen a yaakaar ne dama leen a bind pour fo pour caaxaan wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yacbuduun loolu leer na da ngeen a yaakaar ne dama leen a bind pour fo abadan ixwatal iman ñaareelu élément bi mooy taariful ibada mooy war nañu xam lan mooy jaamu yàlla moom ibada lugatan atazallulu wal inqiyad mooy toroxlu ak wammut ndeke kii jaamu yàlla foog mu nangoo toroxlu ki muy jaamu waaye foog mu nangoo wammutu ci li mu koy digal li mu koy sant su ñëwee ci sharia dinañ gis li ñu waxoon sànq muy ismun jaami li kulli ma yuhibu llah wa yardah min al aqwali wal amali alzahira wal batina tur la woo xam ne moom ibaada dafa ëmb lépp lu yàlla bëgg gërëm ko ci ay wax ak i jëf yu feeñ ak yi nëbbu wa awalu ma amara allahu taala bihi li ci yàlla njëkk a santaane nag wa wassa wa awjaba ala alsinati rusulihi an yubada wahdahu duna siwa li war yàlla yónni yonentam yi yàlla waral ko ci jaam yi mu nekk ndénkaane bu yàlla waral ci làmmiñu yonent yi mooy yàlla tabaraka wa taala yónni na ci xeet wu nekk ndaw na ndaw loolu ñëw leeralal nit ñi ne yàlla tabaraka wa taala dafa bëgg ñu jaamu ko nañu sori xërëm yi kooku mooy ñaareelu élément mbokk yi ñetteelu élément ci dars bi ci leçon bi mooy at tawxid chartun fi sixati al ibada tawxid chart la ci jaamu yàlla wir kennal yàlla chart la ci yow mi jaamu yàlla sa jaamu yàlla wir soo bëggee xam ndax sa jaamu yàlla wir na wala wirul xoolal yow ni nga toll ak yàlla ndax yaa ngi koy kennal ndax yaa ngi koy wéetal wala da nga koy bokkaale su fekkee yow wóor na la ne yow bokkaale kat nga xamal ne sa jaamu yàlla yàlla nanguwu ci dara ndax yàlla bala muy nangu say jaamu nga taxaw ci di ko wéetal moom yàlla tabaraka wa taala mbokk yi at tawxid chartun fi sixati jamii al ibadat wéetal yàlla kennal ko chart la ci mbooleem wérug jaamu yàlla yi fa amalul abd min salaatin wa zaka wa dhikr wa istigfar wa gayru dhalik laa yaqbaluhu llahu illa iza waxada al abdu rabbahu subhanahu wa taala fiha mbokk yi julli li muy rëy rëy joxe azaka zikr tudd yàlla di istigfaar di ko jéggalu di ko bàkk di ko kañ ak yeneeni jaamu yàlla yi nga xam ne waxuñu ko yàlla du ko mën a nangu du mën a wér lu dul jaam bi da cee wéetal yàlla subhanahu wa taala moom rek bañ cee dugal kenn ndax kenn amu ci place yàlla moo ko moom kon yoonu kenn nekku ci bul ko boole kenn ak yàlla nga wéetal ko yàlla nga wéetal ci yàlla ci jaamu gi nga koy jaamu nee na dalil bi ci loolu mooy borom bi tabaraka wa taala dafa lënkale ñaari aaya yi aaya bi qarana al amru bi ibadatihi bi amri bi tarki shirk yàlla bi mu ne an ibudullah nañ ma jaamu man yàlla gis nga ndigal la lu mu ci teg wajtani bu taaxu dafa indiwaat tere bokkaale gis nga aaya bi dafa joxe ndigal an ibudullah nañu kennal yàlla nañ ko jaamu waaye lan la tere ci genn gi mooy wajtani bu taaxut nañu bàyyi xërëm yi kon jaamu yàlla sartam pour mu wér pour yàlla nangu ko mooy fa nga bàyyi bokkaale fa nga bàyyi ñaan ay bàmmeel fa nga bàyyi sa voyage yu sori yi ngay dem di wëri ay bàmmeel di dem ci ay bàmmeel di leen ñaan ku dee amul lu muy maye foog loolu ñu bàyyi ko xel au contraire borom bàmmeel bi dañ ko war a ñaanal mais kenn waru koo ñaan kuy ñaan ñaanal yàlla wa iza saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai iza daan bu la jaam ñi laajee man yàlla fan laa nekk dama jege ba ku ma woo mu wuyu la mbokk yi kuy woowool yàlla kuy ñaan ñaanal yàlla kuy jaamu jaamul yàlla ñeenteel ci élément leçon bi al xikma min irsaali rusul lan mooy xikma lan mooy ak xereñ gu yàlla gu tax yàlla yónni yónent yi lan la min rahmatillahi subhanahu wa taala bi ibadihi an arsala lahum arrusula bid'an min nu bad'an min nu alayhi salam وانتهاء بمحمد صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى التوحيد bokk na ci yërmande yàlla tabaraka wa taala bi mu ëmbal jaam ñi dencal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala yërëm gi mu yërëm jaam ñi moo tax mu yónnee leen ay ndaw tàmbalee ca yonent yàlla nuux ba ci muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi mujjee ñëw ñoom ñëpp yàlla yónni na leen pour ñu war a woo doomu aadama yi ci kennal yàlla ci daaray kennal yàlla waaye ñoom yonent yi bokk na ci seen mission mooy wan nahyi ani shirk ñu tere nit ñi bokkaale aaya baa ngi noonu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul xeet wu nekk man yàlla yónni naa fa ndaw lu tax ma yónni ko mooy anni abudullah mission bi ñaar la anni abudullah nañu jaamu yàlla wajtani bu taaxut nañ bàyyi jaamu xërëm soo ne xërëm nag ñu bëri jëm ci ay stati yu ñu yet naam ci la bokk waaye am nañ ko gën a garaaw ndax tey nit ñi dematuñ ci ay xërëm mais ci ay nit la ñuy dem ak ci ay bàmmeel ak ci ay gàllaaj nit ñi ñett yi ñoo leen tardeel ci réew mii dem ci ay nit sa moroom dafa ne am na lu ñu mën dafa ne nangam ak nangam dem ci ay bàmmeel dafa ne bàmmeel yi am na lu ñu mën dem ci ay buxaaba ay xërëmkat di rey ay xarak di wëri garab ak di sangoo deret danañ yàlla musal da nga gis ay xalifa général yu am ay xàmb seeni biir kër ay imaam yu am xàmb yoo xam ne bala ñuy jiite ci sangu ci xàmb yi boo waxee ñu ne fii lañ ko fekk mag ñi ñoo ko fi bàyyi woon lislaam bu ci nit duggee dootul xalaat mag yàlla rek lay xool ak yonent mag ñooñu dafa am mag yu leen mag saxaaba ya leen mag yonent bee leen mag kon ñooñu ñooñu ñooy mag ña ñooñu nag indi wuñ fi woon loolu bàyyi wuñ ko fi woon digli wuñ ko santaane wuñ ko mbokk yi kon gis ngeen ñeenteelu élément bi mooy alxikma min irsaali rusul juróomeel bi mooy ibadatullahi la tasixu illa bi kufri bi taaxut jaamu yàlla du mën a mat du mën a wér lu dul nit weddi xërëm kalimatu tawxid laa ilaha illa allah dammanat an nafi wal isbaat nafyu ibadati ma siwa allah wa isbaatu alibadatu lahu wahda faman abada allah wa lam yakfur bittaagut falaysa bimuwahid wa aksaru aljuhaali bi zalika fi wa ma aksaru aljahl bi zalika fi hadha alzaman mbokk yi weddi xërëm yi loolu mooy jaamu yàlla weddi xërëm yi mooy jaamu yàlla jaamu yàlla du mën a mat lu dul nit weddi xërëm baat boobu muy baatu tawxiid te mooy laa ilaha illa allah dafa ëmb saxal ak dàq waaw ñaar la ëmb an nafiyu wal isbaat dafa dàq ba pare saxal lan la dàq nafiyu ibadatu ma siwa allah dafa dàq lépp lu ñuy jaamu te du yàlla wa isbaatul ibadatu lahu mu saxal jaamu yàlla kese waxdahu moom rek fa man abada allaha képp ku jaamu yàlla walam yakfur bi taaxut te weddiwul ay xërëm di jaamu yàlla nekk ci jàkk ji di julli fekk sa ndigg laa ngeeg ay ndombo sa loxo yaa ngeeg ay ndombo ay xaaw yaa ngi takk ay lam yu ñuul sa buntu kër ay béjjëna nga fa sa saal ay béjjëna nga fa sa baaru oto bi ay téere ngi ci ak ay xarfa fuufa yaa ngi dem di bokkaale ci ay armeel da ngay julli ba sonn rek ba yow doo dara booy dee di dugg safara ndax bokkaale kan nga ndax da ngay bokkaale yàlla yàlla kenn du ko bokkaale mbokk yi bokkaale dafa garaaw yéen borom kër yi xool leen kenn ku ci nekk rek soo ñëwoon sa biir néeg nga fekk benn góor tëdd ci sa kawlal sa jabar di raay sikkim bi ndax da ngay ñëw ne dem uti bara dakaas raxas daataayal waa ji lan ngay yëg keroog ndax da ngay jëndi boisson loolooy wax ci bokkaale ngoog nag lu ko raw la bokkaale mel moo tax yàlla du ko baale yàlla bind la nga dem bàyyi ko di jaamu keneen di toroxlul keneen waaw di takk ay béjjën ay lamak ay xaawak ay ndombo ci sa ndigg ana la ana yàlla ayna allah ana yàlla jublul yàlla loolu ngay ragal làqatul ci yàlla bu dee njëriñ la ñaanal yàlla bu dee looy làqatu nëbbatul ci yàlla qul auzu bi rabbil falaq qul auzu bi rabbin naas auzu bi kalimatillahi tamma min kulli sheytanin wa hama min kaydin lam ayatul kursi mbokk yi lan lay jëriñ mbokk yi wa man wala wa man lam yakfur bi taaxuut képp koo xam ne weddiwul xërëm yi fa laysa bi muwahid nekkul kuy wéetal yàlla tey nag wa ma aksarul jëhli dara gënta bëri réer fi haza zaman ci jamono bii li ñu réere yàlla réere diine l'islam réere tawxid nga gis ay jullit yoo xamante ne dañuy julli guddeeg bëccëg mais ay bokkaalekat lañ guddeeg bëccëg ay bokkaale lañ suñu xëyee bokkaale wu ñu sax seen affaire du baax ndax tàmm giñ tàmm bokkaale wa ma yumin aktharuhum billah illa wa hum mushrikun alquran nee na li ëpp ci nit ñi duñu gëm yàlla lu dul dañ koo bokkaale ixwatal iman misaalu zalika bu ñu leen di jox loolu ci ay misaal ci ñi jaamu yàlla di bokkaale man yabudullah wala yataqid butlaanu ibadati alqubur fa huwa gayru muwahid képp koo xam ne day jaamu yàlla di jullee ka woor te mi ngi gëm ne bàmme yàqu jaamu bàmmeel ci la bokk kooku jaamuwul yàlla kooku du mu waxit fa huwa gayru mu waxit mbokk yi lii mooy leçon tey bi lii mooy dars tey bi su jubee ci yàlla la boo amee ay manqué manqué ñu ngi koy jégglu in aradtu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah ñu ñaan yàlla yàlla def ñu ay muwahid yàlla def ñu ay dëgg-dëgg jullit yu am tawxid yoo xam ne yàlla rek mooy nekk sunu kanam sunu ginnaaw sunu ndeyjoor sunu càmmoñ suñu suuf sunu kaw lépp yàlla lu ñu am yàlla lu ñu ñàkk yàlla lu ñu dal yàlla lépp yàlla la lu dul yàlla neen la su ko jullit bi xamewul noonu day perte yàlla ñu yàlla def si ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.